Balla Balla dañuy sant yàlla bu baax julli ci Yonent bi salaay sant suñu ñaari waajur rawatina waa Casamance bu ñuy jàppale ñu dëkk fa suñu papa yi dëkk fa juddoo fa yaroo fa di sant ñëpp képp kuy supporter wu Lac de Guiers numéro rawatina waa Guédiawaye di ko ñaanal yàlla ndam suñu borom rawatina njabootu Cheikh na Cheikh Sadou bi yëpp ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaar te xam na Lac de Guiers doom ñaan Lac je pense que man li ma def ci làmb aw ma say ci jël bu set wi ndax géejuwaay gi yëpp ñu ngi préparé combat bi rawatina ay mbokkam ak ñu ko bëgg di ko sonn di ñaan di moom ndam rawatina waa Casamance bu baax a baax kon ñu koy ñaan yàlla na ko yàlla may ndam. Balla Gaye ñëpp benn bopp lañ dañ fi doon dégg ñi dañoo xuloo yàlla may ko ndam bis bi loolu mu ñu findi ñu taxaw ñaan dëkk loxo tey seen dugal mu daanu ci combat waaw combat bu ñu waajal la nag ndax euh, combat bi dafa fekk tey géejuwaay gi ñëpp bëre ba pare di jàppale Lac de Guiers moo tax combat bu ñu waajal la Balla Gaye boo ñaa de ñu dégg ko mu ne dafa yor ka siwo fondé boo xam ne tànqal na ci waa géejuwaay yow yaa ci des ak la de Guiers 2 loolu nan ngeen ci xalaat xalaat xalaatuñ si dara loolu question la ak wax la rek